kii jumtul si ay Wally Seck concert <laughs> yooyu moom dama ko dépassé yooyu moom vraiment <laughs> sama niveau sama niveau de boxe da ko da ko dépassé xam nga ceinture dafa am ceinture orange ceinture jaune ceinture rouge ceinture marron ceinture noire yooyu dafa am am na yoo xam ni boo koy boo buggee wax ku ko waxtaanee da ngay dem ci ceinture jaune ne ceinture jaune ceinture jaune mooy yow ñooy ñooy jàngi ay xam nga ay nii waaw waaw yooyu yooyu c'est dur jour yi la ñun cawaling la cawaling tànk yi ci kaw foofu foofu foofu foofu man vraiment tollu ma fu ma nekk di def yi laay naan non de xoolal waaw foofu man yooyu yooyu ceinture yi la man maa ngi ci ceinture noire yi maa ngi ci quarantième dan yi quarantième dan yi wuti xuur man sama tànk bi ay witti kot xuur la fii lay toog fat wàcce nday xuuru Macky Sall sa ndey man laa nekk man maa ngi ci ay cinquantième dan am na yenn débat yoo xam ne vraiment jàppale <laughs> jàppale leen ma ci rek nekkuma ci vraiment te liggéey ba nekk ay ceinture noire nekk fi naan ay aaramboo xaw ma ki njomboo mbokk gi mbokk def kii waali woo concert war ko am je m'en fous ñu bëgg a dem nañ dem ñu bëgg a dem xaw ma kañ la concert bi mais jàppale ni daal bu concert bi amee ñu bëgg dem nañ dem ñu bëgg a dem buñ dem man sama yoon newu ci concert concert am il a droit à faire son concert bu dee waa France ñoom dañuy dem ci concert am ba ñu fa bëgg a dem France léegi na ñu bëgg dem concert ba nañ dem ci concert ba eh, eh, euh, noonu la aram boo amee droit ñëw ca concert ba ñu bëggut a dem bu ñu dem <laughs> loolu loolu du lutte daal loolu daal du xeex bi vraiment waali woyal wo xotteeku te ñu naw ci waaw bu bu fekkee ni yow assumé woo jàppale askan bi nee nga doo leen woyal nee nga lijjanti woo leen sa bopp ngay lijjanti sa poos ah ku fa dem nag ndayama liggéeyul <laughs> nit nag noo ko forcer quoi sa waay ajanaa ngi nii safaraa ngi nii waa ji ne safara lay dugg lu suñu yoon waa ji moo taxaw nee na moom waaye moom nee na kaasalu la xeexalu la waali nee na moom kaasalu la xeexalu la sa dund yoonam nekku ci boo dee lijjantiwu la boo dundee lijjantiwu la nee na moom seen état yoonam nekku ci politique yoonam nekku ci nee na moom day woy pour ngeen di laalante ak a ñamante ak a a ak saxante ñoo ne moom yooyu lay woy nañ safa-safa saf ñam ko macc ko roof ko ko rocci dugalal juutal ko moom nee na way nee na moom yoonam newut ci la ngay lekk wala la ngay yow ku fa dem nag kooku yow la <laughs> mu tooñ baaxut tamit tooñ baaxut waa ji nee na la nee na moom kaasalu la nee na moom sa silib lay nee na moom sa sa string lay lijjanti nee na nu leen def ba ngeen ñamante lay lijjanti li ngeen pour ngeen mujj ci ay hôtel ak ay motel lay lijjanti ah ku fa dem looloo la saf kon ña fay dem nangul leen loolu man koo ne sama ko nit bu taxawee ne man sa dund intéressé wu ma sa politique intéressé wu ma la la waa ji di def intéressé wu ma lu la intéressé mu ne seen yow nu nooy sumee sa caleçon ak gelbee nu muy sumee silibam ngeen naxante seen biir euh, GTM euh, comme yooyu ñuy def noonu quoi ma bëgg la nga bëgg ma ñi bëggante bëggante nee euh, moom yooyu lay woy fexe mu ngi leen di nax yéen ñaar pour yow nga summi sa caleçon kee summi silibam ngeen def taatu neen naxante ba juboo dugg ci hôtel yi ñamante ba fajar mooy càppantati nee na moom loolu lay lijjanti ah ñi mu saf ña nga fay dem di doxaanante seen biir kii bu futtee stringam kee su futti caleçon ñu mujj ca motel ya ñamante ba fajar sangu ko ne dox sa dox am nañ ci droit du tee réew mi tam fu nekk ma nga fa kon nag bàyyi leen leen ñu bëgg a dem ca futtante ga ci ñamante ga ca laalante ga ci roof rocci ga ah, ci juutal ga ña ña mu intéressé ña nga fa nañ leen may seen jàmm ñoom tamit jàmm la paix jàmm la bagan bëgg bëgg mu ne am ñun ñi nekk ci guerre gi nañ ne ci guerre gi <laughs> loolu kon nag Wally oh, oh, oh, sa concert boobu ngay fas yéene de France euh, defal le combat continue focus 2024 focus 2024 focus 2024 bu leen dara yóbbu focus deux mille vingt quatre loolu lañ leen wax focus deux mille vingt quatre encore une fois man new ma ci jaaru débat yooyu nekkuma ci loolu nekkuma ci caaxaan yooyu dépassé naa loolu situation politique bu sama sama am tal naa leneen lu kuy woy fee kuy nangam ku yor sa billet dem ñamante laalante futteeku mujj ci motel yi naxante mu leen di woyal je t'aime I love you saf na sàppali ko yokk ci bonbon wala yokk ci jimbo wala yokk ci xorom ngeen di wullee ko wulli du tullee ko ndulli du buccante di laalante ak kattante loolu suñu yoon naw ci peace and I'm out le combat continue gars focus 2024 All